parce que sëñ Abdou Lahad dafa nekk sama jarbaat nekk sama xarit nekk Argentine yàlla boole ma ak moom ci teraanga ñu xamante mu jox ma cër lool lool baay ma xel def ma conseil ñuy waxtaan jamono yu paas mu am yéene nag loolu ci réew mi te mu am yéene ci dëkk bi am yéene ci ay mbokkam ci ay dëkkandam ci ay karitam ci ay am di jàmmam mu laaj ma lan laa war a def ma ne ko réew mi duñ ko bàyyi ci loxo kenn boo nekkee citoyen juddu ci réew mi màgget ci réew mi am teraanga ci réew mi dangaa war a jog dugal sa loxo mu boole ko son excellence président Madické Niang ak soxnam mu yebal ma tey Touba ma ñëw depuis démb ñaar laa fi gis teraanga ak mbooloon yoo xam ñu dalal xel xam naa la 24 incha allah taala rabbi février am naa yéene moom ay karitam ay am di jàmmam ay njabootam ay mbokkam ay àndandoam pour fal loolu nag amul lu ñuy def xanaa ku gis li kam nga ne weddi gis bokku ci ay père de famille ñu ngi fi ay mère ñu ngi fii senes bi ñu ngi fii te surtout nag tey bis bi. ak lu mu tombee. ngeen xam ne nag réew mi lii moo koy jëmale kanam. doomi réew mi taxaw liggéeyal seen réew mi parce que lii amul benn leader politique bu fi loo dugg yëpp moom Abdou Lahad ak am ay dëkkandoo am la. man loolu am naa xel yàgg naa ci terrain politique te xam naa luy politique. président maa dikk ak jabaram tey sama xarit ki ma yebal fi am nañu leader politique boo xam ne ëllëg bu nekkee ci Touba ak ci biir réew mi ak bitim réew mi mun nañ ko jàppale fépp kon nañ ko bàyyi xel merci beaucoup loolu laa moom li ma ciy wax. ku yónnee jàppale rek moom la ñu àndal tey ba ëllëg ndax moo nu ko jaral moo meñ indi ko. ndax laat dañu koo jaral lu ñuy ñaan yàlla nu yàlla may fanu gudd ñuy yeggale suñu yéenee ndax laat jar na lu ne laat koñ bi def na fi lu ne moo tax tey bu woosee bu wootee rek ñëppay ñëw ndax laata nu ko jaral xale yi ndaw sax dañoo ñëw. mbooloo mu toll nii képp ku ko mën a mobiliser te nekkoo ci réew mi xam nañ boo nekkoo ci réew mi kon waxaale wuñ ko te nag li xew ci li nga xamante ni nag moo am ci mbooloo mi mooy tey lépp lu fi am Cheikh Abdou laat moo ko def ci mooy boppam. Ah, kon loolu nag ah, ndimbal la te it ah, na xam. Euh, kon foofu lañu ñamale kàddu yi pour mu gën a gàtt rek ñu fas yéene dem si mitin ba euh, fas yéene teew fas yéene wana suñ booloo wana suñ bopp bu baax a baax a baax a baax suñ diggante ak ab Laat Taal jërë di wax ak Laat Taal sama sang taal moo rek lat déggan moori mi ci Njaasaan ak moori borom dandi ma ne soo wootee laat dana neex laat saa bu wootee day neex ndax day mbokkum Sénégal ah, waaw laat kon soo wootee ñaari fan nga woote woote bi fii mi ngi fees della ku nit ah, bu xatu mubaaraka ba ma joge wàcc naa fa fukki oto ak juróom benn yoo xam ne ña nga jëm ña nga jëm ca yow Mbàkke soo wootee dan lay wuy si ndax da ngay mbokkum Sénégal kon boo wootee teraanga dees lay wuy si ma ni bu doon fii ba fajar ñu nekk ak yow bu doon téeméeri oto yi dinañ ko duyal laat ah, laat ma nga ca réew ma kon soo wootee da nga koo séq ak waa Sénégal ah, ñëpp ñu ngi ci sa ginnaaw fas yéenee wateel ma dikke ñaa ànd ñoo kenn ku may ma dikke maa ngi nekk samay kaar ñetti kaar laa déparé te lancement bi la film bi génnagut su neexee yàlla film bi génnee ndax foofa ma dikk ñaar rek lañ fas yéene watal